man maay sa jëwkat ba may toog waxtaan ak nga yor sa kurus bañ maa faale yàllaa fa <laughs> sa jëwkat may toog waxtaan ak nga yor sa kurus bañ maa faale yàllaa <laughs>